man du ma yéen de fii dama ne ñi fi jënd xam nañ leen bu ma taxaw wax ñi fi jënd ak ñi ko jox xaalis xam naa leen waaw dama la dama la man lekk ma ñaar dina moom ma ci sàll soxla may pour sa man nag président daf ma benn sac ndax wóolu na ma barki démb ñu waxtaan yi waxtaan ci réew mi euh, tey tamit mu wóolu ma ni ma def naa la ministre conseil au du président ma koy sant di ko gërëm. man transhumé wu ma tey transhumé wu ma fekk ma ñàkk na mu Macky Sall soxla may postam soxla may postam sax nit waaw léegi daan woote marché yi mais baal ma xam nga daaw de daaw de mille s'il te plaît buuboo même waa APR yi buuboo nee na la yow da ngay dem deux pas ci kanam dem ñoom si sa bopp ñu <laughs> ngay xoolee ba mais non non dama nag ñoom seen bopp boobu la ma ne Sall yaa ko fi wax ah, yaa ko fi wax dama nag mais dama dem lu yow yi même yow da ngay def doo lu tax yow tam luñ tiiree si kaw waaj rek non non non yow non non loolu la luñ tiiree si kaw man man na ñu dagg xam nga li ma moi ce que je ne comprends pas non dégg que je ne comprends pas bien être d'accord que tu sois reconnaissant par rapport ak li Macky Sall mën mais tout à l'heure yaa ngi wax ni on ne s'oppose pas mais ta manière de parler de Macky Sall c'est-à-dire amul amul benn amul amul benn rigueur. boo xamante ne c'est-à-dire dafa mel ni da ngay. da nga mel ni man du ma yéen de fii dama ne ñi fi jënd xam nañ leen bu ma taxaw wax ñi fi jënd ak ñi fi jox xaalis xam naa leen waaw dama ne dama ne la man lekk ma ñaar dërëm ma ci sàll soxla may postam man transhumé wu ma tey transhumé wu ma je reste socialiste à vie sama wax dafa leer man parti socialiste laa dellu geste officiel mais may ko mu wax. ànduma ak Macky Sall ci parti ànduma ak moom ci coalition. il faut lui reconnaître des qualités. non dama ne mais nag léegi ngeen bëgg may saaga nit. ndax dama xaju buntu kër. non non waxuñu lu baax ñu def lu baax. mais li ngeen bëgg wax ko wax. mais Macky Sall dama ne li mu bëggoon déroulé déroulé na ko. man damay fustigé. benn sac ndax wóolu na ma bëri te doon waxtaan waxtaan ci réew mi tey tamit mu wóolu ma def naa la ministre conseiller au plus du président moo koy sant ak ko gërëm ah, man nag mari naa ci xol yaakaar naa ne moom li ñu soxlaa mooy ñu ànd liggéey réew mi ndax loolu laa woon parce que li mu wax tamit neex na nee na ma ko loxo waa Medina tànnaas waay bokk man ma bëggee ko noonu ci réew mi moo tax nga doy ci exemple kon bokk